Eh, di nuyu képp koo xam ne aussi yaa ngi fi di jàpp ci xeex bi di nuyu imam yi di nuyu délégué de quartier yi di nuyu jigéen ñi mbootaayu jigéen yi di nuyu bàjjanu gox yi mais si surtout di nuyu jeunes yi tey jeunes yi laa fas yéene waxal jeunes yi laay waxal lan moo tax may wax ak jeunes yi eh, parce que eh, xeex bi liñ leen ci xaar dafa bari xeex bi nee nañ en fait feebar bi mag ñi lay gën a faagaagal mais bu ñu xoolee tranche bi muy gën a atteindre ci ñun li ñu am jeunes yee ci ëpp boo xoolee ñi am jàpp dix-huit ans jëm ba quarante cinq ans ñu ñoo ëpp ci ñi nga xam ne am nañ feebaru jàngoro bi ñaareel bi mooy à loolu góor ñi ëpp jigéen ñi ci ñun boog li ñu xayma ñun ci suñu district parce que man ay chiffres laay waxee góor ñi ñoo ci ëpp jigéen ñi jigéen ñi ñi ci bari buñ ko amee bu ñuy xool kontagu ña am ci la ñuy gis ay jigéen ci li ci ëpp amul ñàkkul nag ay cas communautaire mais li ci ëpp ay contact la ñuy doon sa jëkkër la ñuy dépister mu positif nga ñëw ñu dépister la nga positif walla doom ji lañ positif ñëw ci biir kër gi yaay ji positif li tax may wax loolu dañu wax la dernière fois ne jeunes yi foog ñu ñaax leen kenn obligé wu leen mais dañ leen di ñaan leen nañu aar sini waajur yi man foofa lay waxee kenn aayewu leen dara maa ngi fi dégg ay manifestation barki démb sama yoon nekkul ci couvre-feu mais dama ne buñ ne nit ñi nañu wàññi jugg bee génn bi nañu toog bu ñu toogee feebar bi amul tànk duggul génnul demul ñëwul nit ay dugg génn dugal ko fenn buñ ne nit ñi toog loo rek a tax ñu wax ko buñ ne arrêté nañ couvre-feu itam foofu la ñuy xaar jeunes yi fan lañ leen di xaar ñoom ci seen bopp ñoo war a nekk ci mouvement yi nga xam ne ñi ngi leen koy tëral ci quartier yi mais nekk ci du ay wax rek du wax ne maa ngi ci wax def ko jëf bi la ñuy xaar jëf bi dinañ def lii dinañ def lii dinañ def lii man li ma li may xaar ci jeunes yi mooy ñu jël en main problème bii nga xam ne moo am cas communautaire dafa bëri ci arrondissement bi ci arrondissement bi yëpp mais buñ ko xaymaa Parcelles Assainies ko ëppale ak Grand Yoff man li may waxee ab ay chiffres la ci li may wax sous préfet maa ngi koy transmettre chiffres yi régulièrement mu di ko jot bii mooy ñetteelu yoon ñuy ñëw ci fii nii commune bi c'est pas un hasard parce que bu ñu xoolee chiffres yi Arafat ci ñi ko ëppale la bokk mooy ne doomu jàngoro ji mi ngi dox ci biir di law ci biir askan wi tant que nit ñaa ngi dox aussi di circuler day continuer di circuler kenn mënul téye kenn ku ne libre nga def lu la neex mais ku ci ne looy def na nga falaat sa waagu yu sa kër ga xalaat ña toog ci kër ga di aar seen bopp nga xam ne defuñu dara ñun foofu lañ leen di xaare e jeunes yi yéen ëpp jot mag ñi nawetaan bi ñuy wax nawetaan maa ngi reprendre les mots de Djibi Diakhaté nawetaanu corona lañ war a commencé comme amu leen yeneen activité yoo xam ne vraiment activité récréative la mais mun nañ ko def nawetaanu corona ñun xam nañ ne lii di jigéen ñeeg jeunes yi lu ñu bëgg a xeex xeex ko lu ñu bëgg mu sotti mu sotti

sama papa kenn fi yobou ko faji ko et toujours ay jeunes lay doon amna ci ne ko dama ko jox dama lenne, jox ma téléphone ma ko né nga sa papa la am nga ci dogal ah, man ko denk na la ko trois heures du matin nga war ko hôpital wala di out place foko bu boba buñu a parce que ñun duñu place dara desu luddul tal sinu suñu oto ñëw jëlal la sa wajur yobul la nga taxaw ne man sama papa la am ci ndogal du dem il faut que yoyu aussi jeunes yi japp lañu ci ñun nekkuñu fi pour di sonal askan bi ñetti weer ngi ni ñu nekk ci biir all bi ñetti weer ngi ni ñuy liggéey ba 4 h du matin ñetti weer ngi ni yo xamne ñi ngi am ay ragalun ragaluñ leen dawuñ leen dañ leen di jël yeb leen ci sini lele lélé sini auto bop lañuy jël di def li ñuy wax voyage cas positif et pourtant ñi ngi gis ñi ngi continuer encore di ñu ñàkk loolu dafay poser problème sànq ci jataay bi yëpp ñi ngi wax préfet ngi wax ñi nga xam ne en seen masque yi mi ngi ci menton bi bu ñu kenn de mais dañu am lu ñu metti man xol laay waxee fi ma nekk nii ku ma dégg xam ne xol laay waxee dañuy wax am na ñoo xam ne ñi ngi téye seen socc di wax socc am ñoo xam ne ñi ngi wax mais kuy soccu mën nga xaar ba yegg sa kër ngeen bal ma nag sama mbokk jigéen ñi kuy soccu mën nga xaar ba yegg sa kër nga toog nga soccu kuy wax itam masque terewul wax ndax maa ngi nii di wax ca masque laa takk il faut ñu comprendre masque bi lan moo ko ëkkati masque yi mesure barrière la fi ñu njëkk a jaar biñ daan wax daawuñu dugg ci euh, dinañ wax waxu masque yi mais daawuñ ci sori torop parce que dañ daan wax naan bala nga naan naam nefa mais tay dañu indi li nga xamné moy masque pour ñi nga xamné en fait amuñu masque wala doyul ñu mëna am masque niko préfet waxé la dernière fois dañu bugg masque yi latte mais la masque yi bu mu aussi ci gis nit ñi to to soluñ ko lañ ko wara také takkee la bo xamné dañ koy yàq mu dal di donc li ñuy xaar ci nit ñi aussi moy li nga xamné ñi ngi ciy japp population bi fi nek aussi ñom ñu japp ci xam nañ seen passe de te xam nañ ne loo leen bëgg a daan mu daanu xale yeeg jigéen ñi liñ koy waxee ku ci nekk bu jàppee xam nañ ne dina avancé borom kër yi li ñuy xaar ci seen kër yi mooy ku ci nekk nga taxaw taxawaay bu mot sëkk ci sa njaboot suñu dugg see ngeen waxtaan ak ñoom suñuy génn ngeen waxtaan ak ñoom suñu dellu see ngeen waxtaan ak ñoom bu boobaa ñun ñëpp dinañ adopté li nga xam ne moom wax geste barrière te bu boobaa aussi di ngeen ñu yombalal suñu liggéey je sais que gudd mais il fallait que loolu mu génn parce que dafa nek suñu xol nangu naño sonn pour askan wi mais askan wi ci préfet na ko xam nañ ko ni rek na ne am ngeen pass pass waaye nak da ñu itam ngeen masque yi comme niñ ko waxé mu bakkan bo dara parce que virus bi dafa am ci lu muy jaar mooy muqueuse muqueuse ci gémmiñ la nekk ak ci bakkan ak peut-être ci bët mais de moindre truc donc moo tax ñu ne leen takk leen masque yi c'est pas pour ñu di ko wax dëkk yu bari ñu ngi ubbi frontière parce am nañ masque ba ñu amul masque kenn waxul waxu masque mais masque am na macha allah na nit ñi jéem a takk masque man dama nee woon sax ñi nga xam ne en fait joxuñ leen masque jigéen ñi lu ñu xeex mu dem buñ ko tontine léegi ñu jox koñ ñi yëpp masque mais yalla baxna bi nga xamantene le DG du port apporter na sa contribution ñeneen def ni mom bala may terminer foog ñu gërëm monsieur le maire li nga xam mom lañ ko bëggé je vous remercie merci